mbokku internet KSTV ginnaaw ba président de la république Macky Sall joxe dogal trois semaines pour ñu tëj école yi ak université yi ngir gën man xeex lii di coronavirus tey jii nag ci altine ji fii ci université Cheikh ante Diop bu Ndakaaru étudiants yi daal dinañu respecter décision boobu ndax xëy nañu jël seeni bagage pour jël bis yi ngir dellu seeni kër ñu teewlu ñenn ci étudiants yi. waaw euh, décision boobu je pense que c'est une très bonne décision. Mm-hmm. parce euh, boo demee au niveau des amphithéâtres da ngay gis benn confinement bu extraordinaire mm. presque yenn niveau yi presque ay 5000 étudiants da nga leen di gis ou euh, ay des peut-être mm, des milliers d'étudiants dans un même amphi mm-hmm. vraiment ce qui pourrait aggraver mm. la situation donc je pense que c'est une très bonne décision bu ba trois semaines bu fekkee am nañ benn amélioration bu significative donc on pourra revenir paisiblement je pense que ne toog bi moom nekkul la meilleure solution parce que comme état bi moo ko décrété il faut que ñu respecter faire confiance vraiment à notre à notre état c'est le minimum. bu loolu weesoo dem nañu service médical bu étudiants yi fekk fa Mouhamed Li di membre ci cellule bu Croix-Rouge bu UCAD di ñu xamal matukaay yu UCAD jël ak ministère de la santé ngir gën mën yokk fagaru bi ñu teewlu ay kàddoom. Euh, waaw. tontu boobu dinaa ci sawar tontu laaj boobu dinaa ci sawar tontu euh, UCAD jël na ay matuwaayam euh, en collaboration avec le ministère de la santé démb indi nañu ay gel euh, antiseptique pour les mais ñuy foroti loxo yi di ko raay suñu loxo yi pour désinfecter jëlaat nañu aussi un lot de masques jox ko le personnel mënuñ joxandoo ñëpp mais jox nañ le personnel. le personnel si je dis personnel je précise personnel de la cellule Croix-Rouge ak personnel médical. ak personnel court bi jox lañ leen ay masque pour ñu ji fagaru gants yi jot nañ ko pour suñu loxo yi pour bu ñu noyante ak nit ñi contact bi yem si gants yi donc en grosso modo court jël na ay matuwaayam en collaboration avec le ministère la santé jox ñu ay lot de masques lot de la tex loo de gel antiseptique ak ay flyers pour sensibiliser waale photo yi ak tegtal yi ñu collé ko si oto yu romb ak oto yu tukki dem si région respective yi euh, bu ñu demee ñu mën a yóbbaale message fu ñu jëm seen bërëb bu ñu jëm voilà. Comme je l'ai dit auparavant dans mes propos c'est une cellule Croix-Rouge donc elle est locale elle gère ce qui est Croix-Rouge à l'intérieur de l'université ñun génnuñu fi suñu zone d'intervention c'est dans les différent foyers biir UCAD fu la ñuy yem bu ñu amee ndigal génn UCAD dañ koy génn mais fu mu nekk nii intervention démb ak tey UCAD la ñuy sanc UCAD la ñuy yem. ba ñu jógee foofu ca université ba nag daal nañu doxantu ba lycée bu yi ñu gis mu ni selaw salle yi vide ñu fekk fi kii di représentant parents d'élèves yi Matar Mbengue ñu déglu ay kàddoom waaw moytu ko moom du lenn lii ma leen di ñaax moytu ko du lenn mooy comme li président bi wax rek na ku nekk toog sa kër ba nouvelle ordre waaw loolu dama lay ñaax parents d'élèves yi nan téye seen doom ñu toog ci kër ga bu ñuy réviser ñu réviser foofu actuellement nii sax lycée Thiaroye daanaka bâtiment yëpp tëj nañ leen waaw bâtiment yëpp tëj nañ leen parce que tey jii ci looloo tax sax ma jog ko ñëw waaw may waxee nag ci turu président parent d'élèves ma Cheikh Tidiane Diagne mooy parent d'élèves lycée Thiaroye mooy président ci turam laay waxe ak turu bépp parent d'élèves waaw waaw loolu moom xam naa ne samedi incha allah ñu ngi ciy bëgg a réunion pour xool nan la ñuy def ba xale yi daal ñuy bëgg mën a toog kër ga di réviser incha allah. ba mu pare kii di monsieur Ansou Mané Goudiaby nekk proviseur bu bees fii ci lycée bi di rafetlu bu baax décision état bi ñu teg lu ko. Euh, donc par rapport à cela je pense que ministre bi wax na ci lu leer nañ euh, décision bi jël nañ ko suspendre les enseignements apprentissage tëj école yi mais ça ne veut pas ça xale yi dañoo war a dem congé dañoo war a dem. fooy dañoo war a dem vacances xale yi dañoo war a toog seen kër jàng réviser seen kër parce que école tëjagul premier semestre ñu ngi ko doog a pare ñun fii sax au lycée de Thiaroye conseil yi defaguñ ko donc il faut de que xale yi mun a étudier utiliser effectivement tout ce temps la c'est trois semaines pour di jàng di réviser d'ailleurs le ministère de l'éducation nationale aujourd'hui tey ci boppam ñu ngi réunir pour xool exactement naka la ñuy def yan disposition pratique yi ñuy mun a jël pour soutenir xale yi surtout les les les élèves en classe d'examen donc am na ay support de cours yoo xam ne dañ ko bëgg a def mu doon ay cours en ligne ce qui fekk élèves yi mun nañ toog seen kër di dugg ci ci planète bi moo nekk ci semaine ak seen ñoom ñëpp yor nañ seen INEN e seen IENN e donc bu ñu duggee mun nañ gis les cours les les les ces cours là en ligne donc ça leur permettra de euh, travailler et de préparer également parents d'élèves également appel bu ñu leen mun a lancer moo nekk ne comme li ma wax sànq rek du ay vacances donc dañoo war a mun a surveiller xale yi pour ñu mun a gën a jàng mën a préparer parce que ouverture bi effectivement le temps qui nu sera imparti du bëri donc xale yi bu ñu jàngee ce serait vraiment bénéfique pour ñoom que ñu bañ ñu bañ bañ a génn parce que bu ñuy génn également du am du amati sens parce que lii confinement la donc ku nekk da nga war a toog sa biir kër moytu génn yu bëri yi donc boo toogee sa biir kër nag xale yi dañoo war a jàng dañoo war a surveiller ñuy jàng mais de temps en temps tamit ñu leen di bàyyi tamit ñii ci ñi noppalu parce que jàng tamit à tout moment tamit euh, c'est pas conseillé donc de temps en temps nañu surveiller xale yi ñuy jàng mais nañu toog ci kër ga bu ñu xale yi génn di dem ci ay plage bu ñuy génn di dem di football également parce que foofu yëpp c'est des regroupements te regroupements yooyu la ñu tere moo tax ñu ñu ñu arrêté loolu donc je pense que par rapport à la décision moom vraiment décision bu rafet la te voilà le conseil égal les conseils que je tenais à donner aux parents d'élèves mbokku internet KSTV la jeunesse autrement lii moo nekkoon seen reportage bis bi ci coronavirus di wax rek corona tiital na askan wi di ñaan yàlla yàlla na fi gaaw jóge